asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen nuyoo fii ci kër Serigne Cheikh Jëmm Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan suñu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax te dolli ko wér di siyaar mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoo fi teew di njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall tàmbale ko ci Serigne Salihu Fall moom Serigne Modou Moustapha Fall di rakk Serigne bi di jëwrinam waaye Serigne Fallilou Fall moom Serigne Aliou Fall Mboor ak mbooleem njabootuk maam gi fi teew yëpp ndigal bàyyi ko ci ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall muy Serigne Cheikh jëmm jëm ci daayira Jësbul Murit muy daayira bi lëkkale mboolem sëti maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp ak mboolem njabootug maam Salihu Fall Daaru Xafoor jëm nag ci daara ji nga xam ne moom la leen seen kilifa di seen wéyjur di seen yaakaar teeg ëllëg muy Serigne Cheikh jëmm sant ci Baye Fall gi mooy fii ci péncum maam Cheikh Ibrahima Fall ci Jannatul Mawa boobaak léegi ñu ne ci nag ndigal. lu yees lu ci tab bi waaye ndigal loole nag ci turu Serigne Cheikh jëm xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ñuy taataan kàddu yi Serigne Saliou Fall Fat Saw mi ñuy jottali ndigalal Serigne Cheikh jëmm loolu su noppee nag Serigne Dame Fall moom Serigne Cheikh Modou Mbenda lañu am ndigal ci moom moom mi nga xamante ni bii moo yor kàddu jës Jazbul Murid mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci mboolem njaboot gi ak mboolem taalibe yi nga xam ne ñooy. mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo ne fu ci biir réew mi ak ci bitim réew waaye di soppe di ay taalibe ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki murid yi njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen jot li nuyu yëpp Serigne Cheikh Jëmb mi fi toogal tey Cheikh Ibra Baay Faal yëpp aju ci moom bu ngeen gisee jataay bii tey jii fii biir kër sëriñ bi la moonu fi woo nuy wax ci kàddoom li mu bëgg nu waxal ko ko nu ameew làmmiñam fii ba fas ku yéene jottali mbooloo mi nii ko sëñ bi waxee rek njaboot gi nga xam ne ñooy njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall di sëtaat yi ñoom dañoo bokk ci kër gi ba noppi am liggéey bu rëy bu ñu def liggéey bi mooy lan <clears throat> dañoo bokk ci liggéeyu kër Cheikh Ibrahima nga xam ne loolu nekk ñu nga ci waaye dañoo dem ba yàgg ñu ne nun dey am na lu nu suñu borom defal muy alxuraan am na ci ñoom na ci seenub dënn ñu bëggoon nag ndaw yi nga xam ni eh, ñu tuuti lañu te loolu xamaguñ ci dara teenoo wut daara joo xam ji di dañ leen fay xamal li leen xamalaale ak tërbiya li nga xam ni mooy yoonu kër gi ba tax ñu sosoon daara ji biñ ko daataa defit bay waxtaan ci ba noppi ñëw nañu ba ci sëriñ bi yëgal ko ko sëriñ bi rafetlu ko lool jox leen ci ndigal ñu tàmbali ko daara ji fii mu ne kere bi ñu koy teg mool bu njëkk bi yàlla dafa dogal sëñ Modou Mountakha mii moo fa ñëw moo ko teg kon buy dox ba dëgg ni ba juróom-benn fukki dongo ne ca biir dafa jàng alxuraan loolu kon mel na ni daara ji <clears throat> ñaanuk sëriñ bi mi ngi leen di wuy si ñoom nag dañoo xeeb la fa ne ci ci ndaw ñu bëggoon lu ca dolliku ba mu mat ñaari téeméeri gone walla lu ko ëpp ndax ñee fa ne fi mu ne <clears throat> ñoo ña leen di jàngal ñoo ne foofa seen dara it manqué wu fa ci seen seen seen lañ fay war a jëfandikoo ak lépp ndax génnuñu demuñu fenn ak ñi leen di jàngal ñu bokk fa ne léegi nag ñu koon fii <clears throat> yëgal si ko sëriñ bi fi daara ji toll yëgal nañ ko sëñ Muntaxa mi nga xam ni moo fi nekkal sëriñ Touba te tegoon première <clears throat> paire ba bañ ko ko waxeet ni ko daara ji day mbàkke fii la toll eh, daanaka yàgg na waaye des na ab liggéey ndax li nu fa bëgg ci eh, ay gone ne fa Euh, dafa dafa da àggagul waaye mat juróom mbenn fukki gone ña nga fa nu bëggoon nag mu doon ab car ci université bii nga xam ne ko mokkale fii alquran ak yar ba war a ne ci yow ne ci ñu indi la foofu sëriñ bi it nangul leen loola ñooñee nag ñoom la sëriñ bi <clears throat> wax ni dafa bëgg mbooleem njabootu Cheikh Ibra gi ñu ko yaakaar daara ji kenn ku ne dugal ci loxoom ci wër wërsëgam lu mu mën a doon rek ndax ñoom ñu ngi ñu ngi ñu ngi liggéey ay nekkuwaay te bàyyeeguñu kon nag loolu rek moo waral woote bii yaakaar naa ni su ma daaneele sama kàddu sëñ daam mii dana leen gën a leeral li na ci lettre bi ndax sëñ Maguette mii moo ko indi léegi sëriñ bi jox ko ko ne nanu ko ko waxal léegi nag loolu yi mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi waxoon ne ah nañu ko jottali mbooloo mi yéen nag mboolem bokki taalibe yi fu taalibee na te yaakaar Cheikh Ibra ndigal langoog sëriñ bi daal nee na nañ ñëpp dugal seen loxo ci daara ji nga xam ni daara Cheikh Ibra la ah ñu di fa jàngale alxuraan di fa tërbiya loolu rek la bëgg ñu def ko moo waral woote bii ak mbooloo mii fi daje ñi ngeen gis ñu toog ci sama ginnaaw ñëpp wër ma ñooy njabootu Cheikh Ibra nga xam ne ñoo ñooy daara ja ñoo ko sos ñoo ko yor lu ci war ñoo koy def ñooy toppatoo gone ñooy def lépp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani ñoo ngi yëkkati sunu kàddu si turu mboolem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne ñoo tënku si daayira Jësbul Murit ni ko sëriñ bi waxee léegi rek si bërëb bi nga xam ne mooy kër sëriñ Cheikh Jëmb Fall. di jëwriñu mboolem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ñuy ñaan yàlla sunu borom mu yàggal ko fi lool te wéral ay cëram ba li mu yéenee liggéeyal maamam ja ak waajuram yu baax yi lépp mu def si lu kawe njortam ñu ngi koy ñaan si barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall maamam ja barkeb Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul euh, di siyaare bu baax a baax suñu kilifa yi ñu toogal fii euh, sëriñ Saliou mi nga xam ne moo wàcce kàddoom léegi. nga xam ne kàddug sëriñ bi la doon jottali di ndawul sëriñ bi di taalibeeb sëriñ bi di rakkam noonu ko sëriñ Mamour waxee si teewaayub sëriñ Fallou Fall moom maam Aliou Mbawor mi ngi nii toog kenn ku ne xam ko si yitte ju mu am si liggéeyal maamam ju baax ja ak waajuram yu baax ya si sëriñ Bada mi nga xam ne moo fi teewal mbaa daru xafoor yëpp waaw damay wax ni suñuy tudd Cheikh Ibra maam Saliou a ngi si biir benn lañ ak njabootug maam Cheikh Fall gi fi teew yëpp góor ak jigéen ah nuy ñuy jot sof rek suñuy kaddu si kàddu yooyu nga xam ne foofu la sëriñ bi daaneele eh, li nu fi dajale mooy ndigalu sëriñ bi ndax eh, nun du ñu dox si lenn lu ndigal ndax danoo jaayanteeg sëriñ bi jox ko sunu lépp eh, jébbal naa la sama bopp àddina ak àllaaxira boo ko waxee moomatoo sa bopp kon li fi des mooy ngay jëfe ndigal la ndigal loolu nag moo nu fi dajale fii si kër sëriñ bi gannaaw ba nga xamante ni ndigal lii mu nu joxoon ni ko sëriñ bi waxee si daara ji nga xam ne sosoon nañ ko te ba nu koy sos ñu ñëwoon fii laaj si ko ndigal mu doxoon nu ndigal li jox ñu barab bu nu ko war a def muy fële sa kër maam Cheikh Ibra ga mu mu jox ñu ndigalul ñu natt fa lu ma téeméeri mètre yoo xam ne wet gu ne ñeenti wet yi gune di téeméeri mètre mu ne nun nan ko def foofee sa péncum maam Cheikh Ibra Fall waxit nam ko bëggee woon wax ni na doon daara joo xam ne daaray arxuraan joo xam ne dana wuyu si daaray cosaan yi nga xam ne moo fi amoon naka jëkk nga xam ne loolu la ñu sëriñ bi jàngal yàlla dogal mu jox ñu ndigal la ñu tàbbi sa boole noog sëriñ Saliou mii toog ak euh, sëriñ Idaali Fall yàlla na ko suñu borom dolli ay leer ak njabootuk Cheikh Fall ñu si bari ñu ànd kook ñoom ñu ñuy liggéey liggéey ba tàmbali ko mille 2015 lañ ko tàmbali woon si jamonoy sëriñ Sidine Mokhtar yàlla na sama borom dolli ay leeram Euh, ba nu koy tàmbalit ni ko sëriñ bi waxee sëriñ Muntaxa mii nga xam ne mooy Xaadimu Rasuul moo ñëwoon teg si xeer wa ànd koog mboolem njabootu maam Cheikh Rafal gi si teewaayub sëriñ Cheikh Jëmb Fall ak mboolem sëti Cheikh Rafal yëpp teew fa ak njabootu sëñ Touba gépp waaw euh, barkeel loolee teg xeer woowee nag barkeel liggéey ba tàmbali ba mu tàmbalee taxawul ba nëga ni ni ko sëriñ bi bëggee woon te digale ko woon noonu nu nekk si noonu ba nëga ni ba fii nu yàlla dogal na Euh, def nañ ba miire nañ ko ba mu daj ku fa dem di nga ko xam ba mu doon ay bunt li si dolli ko mooy defar nañ fa bâtiment bu mag boo xam ne bii bâtiment jàngukaay la nga xam ne fa la fa gone yi di jàngee bâtiment boobee nag nanu ko saytoo mooy juróomi téeméeri tout tànk mën nañ faa nekk di fa di fa di fa saytu di fa jàng alxuraan ba ba nuy mokkal ah euh, mu doon loo xam ne bërëb boo xam ne euh, waxtu mu ne boobaak léegi daayira bi jugul si waxtu mu ne mu def ko yitte di si di si yëngu ñu koy ñu di ko yaatal saa su ne si bokk taalibe yi ba jamono yi nga xam ne yàlla def na euh, ñu tàmbali liggéey bi daaw muy 2019 dongo yi si ndigalu sëriñ bi tàmbalee ñëw di jàng ba mat fa juróom benn fukk yàlla def daayira beet ñu jël ñaari jàngalekat ñoo xam ne ay sëriñ daara lañ ñu ne fa di leen jàngal njàngale maat na muy demee mooy ni ko sëriñ bi bëggee mooy dafa bëgg ñu jàngal leen alxuraan yar leen jàngal leen xam-xam saytu leen te lépp doon addiyey maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne ñoom ñi fay daje duñu si ñàkk lenn seeni wajurit duñ si ñàkk lenn noonu la ko sëriñ bi digle woon bëggee ko noonu daayira be taxaw si noonu ndax ñii fa ne dañuy jàng te euh, sartoowunu lenn ak ñi nga xamante ne si ñooy waa daayira Jazboul Mouride euh, waaye nag ña nga xam ne ñoo fa ne di leen di jàngal muy ñaari sëriñ ya fa jote ne di leen jàngal ñoom des leen di fay te loolu waa daayira Jazbul Murid ñoo leen di fay loolu it kenn ku ne xam ne ni lu jaadu la nu koy nu koy xamal sëriñ bi euh, li si toppit mooy am na fa am na fa ñaari gardien yoo xam ne ña nga fa ñoom it ñoo xam ne ñooy saytu bërëb ba ak dongo yi te di leen saytu ñoom it am lu daayira ji nga xam ne warloo ak ñoom yàlla def ndigal loo lii nag ñu nekk si ba toll foo xamante ni fii euh, bi nu koy yëgalee sëriñ bi mu yebal ñu si sëriñ Muntaxa ne nu gannaaw fa ngeen demoon laaji fa ndigal dellu leen fa ci sama kàddu ba nu demee sëriñ muntaxaat wax ko sëriñ bi mu bég si lool sant lool ni muy wax rek ni lépp lu muy tàmbali lépp lu muy def rek bu si njabootug seerafal jiitoo moom am xelam da siy dal ba tax na mu wax ni moom sëriñ bi daara jii kat def na ko muy bànqaas si université bu mag bii nga xam ne moom lay tabax di ko taxawal nga xam ne képp ku makkale arxuraan si daara ji ñu yar la fi jàngal la fi la nga war a jàng da nga mën a àgg sa université ba eggale fa sa xam-xam yi nga xam ne moom nga war a sàkku euh, loola nag di feex nu dellu si nag xamal ko sëriñ bi bi nu ko xamalee sëriñ bi nag nu xamal na noonu nag nanu defaat ab woote boo xam ne bii a jëkk yoonu murit lépp lu fi mas a taxaw des koo yaatal ba murit yëpp tàbbi si jumaa ji ba ko Sëriñ Mor Moussa di di sos di di tàmbali dafa woote woon ñëpp ñëw sëriñ Fallou noonu sëriñ ab ba ko sëriñ Abdoulaye di yokk dafa woote na murit yëpp ñëw am na ñenn ñu taxawoon sax neen moom nañ leen bàyyi nu def ko waaye sëriñ bi dafa wax ni dafa bëgg ñëpp jariñu njariñ lool yi nag moom la sëriñ Cheikh Jëmm Fall bëggal mbooleem ku yaakaar sëñ Tubaa mbooleem ku yaakaar maam Cheikh Ibra Fall mbooleem ku kuy noyyee Cheikh Ibra Fall moo tax mu bëggoon mu santoon nu nu daje fii fi moom mi ngi nii di nu dégg ñu daje fii woote waat mbooleem njabootu sëñ Tubaa ndax bu nu nee njabootu sëñ Tubaa rek mooy kër maam Cheikh Ibrahima Fall woo soññ leen ci liggéey bi nga xam ne mooy ndigalul Cheikh Ibra lu jëm kër sëñ Touba loola murit bu ne war na saa fas yéenee tabbal aw aw ñaqam moo xam ne liggéey bi fii mu toll juróom benn fukki dongo ñoo fa ne di fa jàng alxuraan te li nga xam ne mooy sunu sunu su fi nu bëgg a àgg mooy juróomi téeméeri gone ñoo fa war a ne jànge fa ba génn nu dugal fa ñeneen ñoomit ñu tàmbali liggéey boobu yi fo loolu yi nag ngir nu àgg fa faw nu nu nu yaatalaat bërëb bi faaw nu àggale liggéey ya nga xam ne sumb nañ ko fa te te mu des euh, loola nag lay tax mu am mooy sëriñ bi dafa bëgg nu woo si taalibe yëpp woo si képp koo xam ne kii dangaa bokk si njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall yaa xam nga di ab seex yaa xam ngay jëwriñ yaa xam ngay dayra yaa xam nga di ab taalibe boo xam ne bii da ngaa da ngaa gëm Cheikh Ibrahima te bëgg ko di ko noyee fu fi waaye mën a nekk sëriñ bi wax ne nañ la woo nañ la soññi si liggéey boobu ngir nga tàbbal si saw ñaq ndax kat liggéey la boo xam ni suñ si jàppee mu dem suñ si jàppul mu dem ku si dew saw ñaq dana àgg ku ko si defut dana àgg waaye sëriñ bi dafa bëggal ñëpp taw féex moo tax mu wax ni nanu ko yaatal ba ñëpp mën see tàbbal seenu ñaq ngir taw féex googee nun ñëpp nu mën koo jariñoo loolaay sababu mu woonu fii bind ab leetar si loxoom muy procuration boo xam ne bii da koo bind si loxoom jox ko sëriñ Magay mii mu jottali ko sëriñ Saliou Fat Saw procuration bi mi ngi nii li mu si tënk ñu bind ko si wolof bind ko ci tubaab moom dafa wax ni dafa wax ni moom Serigne Cheikh Jëmb mi ngi digal bépp taalibe képp koo xam ni kii mbégum Cheikh Rafal wala mbégum Sëñ Tuubaa sa mbég la mi ngi lay digal liggéey bii mu sant waa daayira Jësbul Murid di sëtaati Cheikh Ibra yi mi ngi lay digal nga def si sa ñaq ak sa doole ak sam xel ak loo sa sa kem kattan te xam ni boo ko ci defee day lépp loo ci yaakaar si lu baax danga ko am te ngërëm li ñuy yittewoo day ni ko sëñ Muntaxa waxee rek ngërëmul yàlla moo dàq na fop te liggéey bi sëriñ bi nee na mën nañ ci am ngërëmul yàlla kon ñun ñëpp ñu maase xam ni lii sëriñ bi di woote mooy bëggal ñëpp jàmm bëggal ñëpp tawféex ndax yoon wi kat jëf rek ka fi ne jëf dong nga fi jariñ Cheikh de fekkoon na kër sëñ Tuubaa julli fekk fa woor fekk fa xeeti jaamu yàlla yëpp waaye li mu li mu li mu li mu rawe ñëpp mooy li nga xam ni moo fi ne rek jëf rek kennal sëñ Tuubaa ak ñaqal ko te yàlla tax loolu rek la Cheikh Rafal rawe ñëpp kennal sëñ tubaa ak ñaqal ko te yàlla rekk tax loolu kenn ku ne xam na ko kon nag ñaqal googi moom la ñu sëriñ bi woo ñu ñu ñu fas yéene see tab bi sëriñ bi wax ni bépp taalibe foo mën a ne si àdduna muy si réew mi ak si bitim réew mi ngi lay digal nga nga nga nga jaaju dajale saw ñaq te mu bañ a doon wenn yoon rek nga def ko muy liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall nga fexe ba jëw jëwri ñi jëf ci Jazboul Mouride jot si ñu dugalal ko ko si liggéey maam Cheikh Ibra Fall bii ndax daara jii dey ndamul Serigne Cheikh jëmb la ndamul maam Cheikh Ibrahima Fall la ndamul Serigne Mountakha Khadim Rasoul la te ndam yooyu kenn ku ne war nga see tàbbal saw ñaq ba tax mu wax ni képp ku bëgg a jokkoo ak ñoom numéro yii ma leen di jox boo si wootee da nga jokkoo jëwriñ yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi teg ci sunu kanam muy 78 592 86 86 ak 78 592 87 87 78 592 86 86 78 592 87 87 loolu mooy ñaari numéro yi nga xam ne ku si bëgg am ay leeral boo jokkoo ak ñoom mooy daa numéro yi nga xam ne da ngay jot directement ñi nga xam ne ñooy jëwriñi daayira bi li si dolli ko mooy ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew wala ñu nekk ci réew mi te nga xam ne seen addiya dañ koo bëgg a jaarale ci banque bi loolu Ecobank mooy banque bi nga xam ne moom la fa la ubbi compte bi nga xam ne li ñuy dajale mu jëm sa daara ja foofa lañ koy dajale muy Ecobank ku ko bëgg a def par virement da ngay def SN 094 170 06 SN 094 zéro 06 loolu mooy numéro bi nga xam ne ku bëgg a def virement banque par banque numéro boobu ngay jël mën ko saa def su ko defee mu tàbbi si compte waa daayira Jësbul Murit képp koo xam ne da ngaa bëgg dem si banque ba defal sa bopp versement mu dugg si compte bi da ngay def numéro bii nga xam ne moom laay bëgg a wax mooy da ngay def cent un muy un ak ñaari zero def vingt cinq def quarante def soixante quinze def ñaari zéro def un muy cent un ak ñetti ñaari zéro vingt cinq quarante soixante quinze zéro zéro un loolu mooy compte bi nga numéro bi nga xam ne képp ku bëgg de def si si si foofu nga koy jaarale kon nag loolu mooy kàddu yi nga xam ne euh, sasoon nañu ko muy jëwriñ waa Jësul Murid Serigne Modou Fall mi nga xam ne mooy sunu jëwriñ ak Serigne Maam Cheikh Fall mi nga xam ne ñoom it ñoo yor commission njàngale mi nga xam ne ñoo koy saytu ñu sasoon nu ko ñu lott si lool waaye nag lu si manqué xam na ne nun la waaye ñoom day matale nañ lépp ndax taxawaay bi de mat na sëkk ba nu ko tàmbaleek léegi waxtu ne ñoom ñi ngi si liggéey boobu yi sëriñ Magay mii xam na si dara fu nu toll nu ñëw fii di wax sëriñ bi fi nu toll sëriñ bi di leen ñaanal di leen dolli ndigal di leen jàppale bu baax kon nag loolu ñu ngi ñaan yàlla na sax dàkk li si sëriñ bi bëgg yàlla na ko am barke maam Cheikh Fall nun nag liñ si bëgg mooy sëriñ Cheikh jëmb mii liggéey bi àgg mu ñëwal boppam ànd ak njabootu sëñ Tuubaa ñu ubbil ko boppam mu ñaan fa ñu tàmbali liggéey bi mu nekkaat fi lu yàgg lool ba tàmbaliwaat leneen ak leneen ak leneen ñun loolu la ñuy ñaan yàlla barkeb sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul barke maam Cheikh Fall yàlla mën na ko yàlla na ko def barke alquraanu karim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi jëral ci sunu nuyoo ak suñu ziar Euh, sëriñ Mountakha xalifa général des mourides di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi de wér waaye di ci tegit nag ki nga xam ne moom mooy jëwriñam di Cheikh Ibrahima tey ci kaw suuf dañu nekk ci barabam nii di waxtaan ak yéen muy sëriñ Cheikh Jëmbu Fall di xalifa général euh, Baye Fall di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba mébét mi mu mébét ci liggéeyal maamam Cheikh Ibra mu àggale ko dañu ànd ko moom eh, ginnaaw bi sama kilifa gii nag di sëriñ eh, Saliou Fall eh, waxee ba noppi dana xaw a diis ma yi teg dara ak it sama doom ji di sëriñ Dame Fall ndax dañoo wax wax ju mat sëkk ah waaye nag ginnaaw ñoom ñoo joxe ndigal man ma sànni ci ay kàddu rek moom day daal doon lor dootuma ko sañ bañ waaw muy kàddu yoo xam ne doolee doolee soññ la rek ndax daara ji yi nga xam ni moom la sëti Cheikh Ibrahima Fall yi taxaw taxawal dafa firndeel ñaari mbir yoo xam ni mën na ni mooy cosaanul yoonu murit muy muy waaw fi muy waxee naan isma al yàlla ilma ma abadi yaa jaami an naasi doonal kaddi kamadi mën naa ni sax ñetti mbir yoo xam ne Serigne Touba da ko bëgg sàkku ko ba tënk ko ci bayit dafa daje ci daara ji muy liggéey di jàng xam-xam ak it booloo ndax Serigne Touba dafa bëgg ak njabootam booloo booloo gi nag li ko firndeel mooy daayira bi nga xam ne dañ ko def sos ko bokk yàlla bokk euh, bokk bokk gi waaye nag bokk yitte bokk bokk bokk yéene boole seen bopp ci daayira tudde ko Jazbul Murid di sëti maam Cheikh Rafal kon lenn loolu ci dëggal gi nga wax ci sëriñ bi boole googu ci la bokk ñaareel ba mooy liggéey ndax daara ji eh, alal la koy def aw ñax koy def ndax ñoom ñi bañ ko tàmbalee yàgg na eh, ca njëlbéen nga ñu néewoon ci doole lool waaye nag seen seen yéene ak seen pësteef eh, tax ba mu àgg foo xam ne tey kawe na jort donte donte donte donte motagut te loolu la ko waral mooy ñax rek lépp lu ñu am def ci lépp lu taalibe yi am def ci lépp lu euh, soppee cheikh yi lay am jox leen ñu def ci kon loolu aw ñax la ab liggéey la nga xam ne kon dajale na ñett yi nga xam ne mooy cosaanu yoonu murit te te te Sëriñ Tuubaa euh, bëggoon ko kon nag euh, ni ko sëñ daam waxee léegi ab taalibe moom la koy jëriñ rek mooy ñaqal sëriñ bi euh, lépp lu ñu yëkkati muy ndigal euh, mu def ci lu mën ak lu mënut ndax loolu da koy taxa taxa jëriñu sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa moom kenn du ci jëriñu ci ay wax ci ay jëf dong lañ ci jariñoo te am na ñu wax ni Cheikh Ibra am na am na ñu fekk kër sëriñ Tuubaa euh, lañ fa nekkee woon day ah, lu baax la lu rafet la waaye Euh, la fa seen maam indi di Cheikh Ibra ba àdduna bépp di jëriñu tey yaakaar naa ni loolu mooy mooy liggéey waaw ndax wax na ni fekk na fa am njàng fekk na fa jaamu yàlla waaye li tax boo tuddee yoonu murit mu ràññiku ci mbooreem yenn ngëri lislaam yëpp loolu Cheikh Ibra moo ko indi ci kër seen duwaa te boo ko den dindee ci yoonu murit it yoonu murit day daal di yem ak yoon yëpp te loolu mooy liggéey kon nag lii ndigal la loo xam ni bu ko sëriñ bi joxewut woon ni taalibe bu ne eh, da ko war a toggoo eh, di génne ci aw ñaxam moo xam weer la koy def moo xam at nu mu toll mu néew mu lu bari mu yëkkati ko jox ko ñi nga xam ni eh, ñoo yor daayira bi te jubluwuñ ci lu dul rek tàgganti njaboot gi teete leen ba lépp lu war ci ñoom ci yar ak xam-xam te loolu moo leen di jëriñ àdduna ak alaxira ñu def ko ci ñoom kon nag loolu ñun ñëpp la war alali taal murit bu ne war na cee dem rawati nag nag ab Baay Faal kon nag xam naa maa ngi guddal euh, doon kon loolu ab soññe woon la rek waaw di ñaan sama mbokki taalibe yëpp kenn ku ci ne loo man nga bañ koo xeeb waaw te bañ koo yemale ci benn yoon it nag waaw waxtu woo amee rek lu mu tuut ak lu mu bari rek nga fexe ba ñu jot ca